jigéen ñi am problème di leen jàppale di leen taxaw di def fundraising di jaay garabi ku dali kooyu nooyi dëgër Aïssa ak Thiam duñ suma liggéey te wax soo ko waxee ba mu jeex teg ko nga daj jàll ci leneen ku am interest na ci dundal sa account because soo waxut Aïssa doo am view yow continuer ku am interest ci political agenda di use Aïssa continuer Cheikh Ahmed Cissé tey la koo tëral until further notification bis bu lu am solo amee ma ñëwaat wax waaye li ma wax tey fii jàppaleen ko ku nekk na screen record doo leen gis mukk lu uuteeg loolu ku nekk na screen record dinaa leen wax ñetti mbir yoo xam ne mosu leen koo dégg ci kees bi te exactly noonu la moo demee let me ask myself some important questions which are very important pour ngeen mën a xam lan moo xew Caam ak Aysa sëy leen séqoon dañ ci d'accordoon said brique contract bi ci am block on the 18th December la ko block te ñu ngi warona sey say Christmas Eve cham daf don jox sa xaliss li mu ne ko maa ko may yak say mbokk ba léegi ko li mu ne ko nen ci def business as spouse sa brique contract bi ba pare tedd ci xaliss bi ne du ko ko jox soo leen déggee ñi koo jàppale ñaari woot leen di use forcé wut ko amul proof forcé wut ko amul proof musu ñoo wax joxut ko ko kon ñoom nangu neen ne Aysa jot na xaalis di two words they use is very dafa ñàkk solo daal forcé wut ko joxut ko ko forcé wut ko joxut ko lii rek waaye doo ci dégg ku ne xaalis bi amul doo dégg ku ne Aysa lekkut ko forcé ko joxut ko ko kon Aysa ci boppam nanguwut contrat gi bi joxewul xaalis bi te laalut xaalis bi dafa bàyyi xaalis bi ba 2023 bi coow li génnee yónnee naa leen bank statement si ci la ko door a withdraw te soo leen xoolee bank transaction si li ko caam joxoon rek moo fa dugg su dul loolu ay thousand de la si la ten thousand waaye xaalis si caam bi receipt bi ma leen wonoon ay sa saan ne jot na ko ma wan leen fu mu ko dugalee ci banque bi wan leen fu mu ko génnee loolu rek a dugg te ay sa ci biir enquête bi ci police dafa wax mu ne caam su ko joxaan xaalis bi daf ko dee denc ba caam ñëw mu joxaat ko ko police yi dineen gis évident yi police yi dañoo contact banque Gambie Aïssa pour ñu yónnee leen relevé bi relevé bancaire because man ma am ko jox ko police it won't work that way dañoo contact banque bi for international law banque bi print outal leen banque account yi Aïssa léegi nag su banque account bi demee Aïssa ci PV bi dafa wax police yi mu ne dëgg la caam jox na ko xaalis waaye daf ko daan denc su caam ñëwee daf ko ko day jox léegi Aïssa du mën a justify loolu because of bank account bi receipt bi mu jot amount bi mu jot moom la dugal ci banque account bi xaalis boobu toog na fa two years te 2021 leen gëj a wax 22 yëpp xaalis baa ngi fa ba 23 ci la door a génnee xaalis bi kon dafa fenal police senegal ci enquête bi problème number one pour Aïssa du ci du ci dossier bii de dinaa ñëw ci loolu man tey laa ciy pare bëgg ngeen déglu ma ma résumé leen everything soo leen fi jógee Odastar man lii duma ci waxati toon naa page bi damaa ambiance nekk ci leneen léegi ay sa na foofu loolu beneen kees la kees bii nii lan moo tax ñu jàpp Aïssa <coughs> maa ngi dégg Pape sànne ku mun a fen la mooy paa boobu dee toog Walfadjri dinaa ñëw ci moom dossier am because dafa fenal Basic Bank fenal benn famille loolu maag suma sénégalais audience la dinaa ci ñëw Pape Sané léegi yéen yéen a la lacca ngeen ne keesi Gambie bi ak keesi Dakar bi yëpp benn la den transfert keesi Gambie Dakar demeewut noonu de caam Sénégal la njëkk a porte plainte April 29 2022 la caam porte plainte in senegal mu porte plainte Gambia 16 December 2022 in Gambia kon kii si Sénégal moo jiitu bu Gambia bu Gambia bi nag dafa am ay police officers yu doon lekk xaalis yi caam di ay sa ngir corruption I know their names their titles and I have evidence of the money given to them but as a citizen dinaa waxtaan ak IGP Be pare suñ ci nangoo dox ñu dox ci suñ ci doxul ay expose them publicly and give a shit because suñ uniforme leen sol suñ xaalis leen leen naa fay they were not paid to be corrupt but to fight corruption kees bi yéex amut bopp amut genn senegal all ñu ngi doon def seen liggéey f bari sa restaurant amna sénégalais yu fa daan ñew ñaar ñu njool ku ñuul te daan sol cap ay sa su ñëwaan toogee boor ak ay xaritu gor jigenam they were all investigators sénégalais den topp kiis bi ba am lu leer Gambie mom ñu ngi na ñu ngi wa aïssa wa defal li ma def li ma nangam ma nangam ma nangam nangam am nañu jub am nañu jubut ñëw yoon ma tok ma gis ko mu pis ma nuy ma ma nuy ko biñ tassé ci hôtel mu né mission fi ñëw den dan top aïssa in and out li sa du luma wara wax bot just pour ngeen understand because Gambia ak senegal dafa am lu ñaari réew yi sign lo xamné yeen citizen si xamu ko laaj ben magistrate bu nek Gambia ak commissioner Sané kérek bima ma Senegal Sénégal ñëw si police bi benn police officer daf ma japp ne yow ya wax ne alquran amna lo xamne ne du deug senegal ñu ngi la wor togal Gambian police den ma tiyé man as a Gambian citizen with my Gambian passport den ma tiyé contact Interpol mu contact Senegal, ma ne leen fii government bu duñ wax because xam ne duma dem kaso ñu tiyé ma mo dan one hour ñu bàyyi ma dem ben magistrate bu turam o sant bi jeexee jee mu ngi doon def intervention ak commissionnaire Sané commissionnaire Sané mu ne jiite woon na euh, Interpol ma ne ko I don't need it yow mi ma bind xeloo maa ngi laa gis dama mun a gut a jël because maa ngi wax maa ngi read sa message yëpp waaye mun a guma laa dugal because fii maa waxee nii munuloo dugga fi bàyyil ba ma egg si feneen ma jël dangaa gis ne tey mu ne ma nen contact Interpol ki fa nek koku contact ki nek senegal ndax da ngeen soxla wan Cheikh Ahmed cisse ñu ne dedet ci len ma baye ma doora dem te Gambien la bir Gambia la ba Gambien passport te fama nek fama defé crime bi senegal la way dama ñew ñu tiyema investigator si ñew nen Fofu. di anda ay sa restaurant di dem ak moom di ñew ngom di gis movement sek in and out everything verify laptop. def ko mandat d'amener toppa justice Sénégal keroog bi jàppee Aïssa den ko bul wax benn woote sa looya ñëwut looyaam bu tudda Baboucar Cissé mooy suma looya man one of the biggest and best lawyers in the whole of Afrique francophone from Côte d'Ivoire to Gabon Guinée-Bissau to Guinée-Conakry Côte d'Ivoire to Burkina Faso Mauritania to Morocco in Sénégal he is one of the best lépp luñ laaj Aïssa looyaam moo toog ñoom ñaar ñu sign kon foofu injustice amul fa force case bi lan la Gambia civil la fii criminal la force case biñ ko jàppee mooy vidéo nit te yëgut la nga di ko threaten di ko laaj xaalis eh, eh, nga di ko threaten ba pare eh, di ko tiital menace pour génnee ay vidéo lii leen ko jàppee moo nekk ci PV bi yéen ñëpp mun ngeen koo riit yéen a ngi dégg loolu buñ ko ci jàppee den laaj Aïssa ñu ne ko yow ndax am nga social euh, réseaux sociaux euh, réseaux sociaux ndax internet yi am nga ci dara mu ne déedéet moom Facebook la am ak WhatsApp sa never mention ne am na Snapchat te yéen Gambie yépp xam ngeen ne sa am na Snapchat te ci vidéo yooyu nekkut nekkul iCloud Snapchat soo demee am na fu ñu dee denc ci ruxëy fa la ko ay sa denc moo tax mu weddi Snapchat to cover her act fekk justice jàpp na ko ñu bàyyi ko ci biir soo PV boobu li fa Aïssa wax yépp ak liñ am ci loxoom dafa uute moo tax ñu pousse dossier bi flagrant mooy loo xam ne dafa leer di di acte à léegi li ñoo la ca mooy yaa ko def wala defuloo ko waaye li ñoo toppee ay mu ngi fa